ko seppi am déet sam ak yàlla kenn du ko bala sori bi xoolaat jamono ji xoolaat jamono ji xoolaat njaboot yi xoolaat soxna yi ndax ñii fi nekk léegi nekk léegi bëgg nañoo jaar nit ki ak soxnaam bëgg nañoo jaar nit ki ak doomam jaar nit ki ak dëkkandoom. jaar nit ki ak dëkkandoom. bëgg nañoo jaar ki ak mbokkam. bëgg nañoo jaar nit ki ak mbokkam. ba mën koo jaxase. ba mën koo jaxase. ba mën faa yàq. te kat. te kat. ñun loolu la am. te ko téye bu baax. kenn mën dara. bu ci kenn mën dara. bu ci yoonu kenn nekk. bu ci yoonu kenn nekk. nan ko liggéey nag. nan ko liggéey nag. laxasaayuwaat. laxasaayuwaat. dellu ci tool yi. dellu ci a a caa am teraangay àddina. ba caa am teraangay àddina. ba mën caa loola bu baax a baax. te góorgóorlu. te góorgóorlu. te buñ xeebante. yabante. buñ yabante. nañ yërëmante. nañ yërëmante. te dimbalante te toppante te soppante kon day kon day reex reex reex xet xet gi baax gi war a nekk ci suñu nit xet bu baax gi war a nekk ci suñu diggante nit ñi di bokk géeg di bokk géeg lépp du sàlli mukk du sàlli ko defee te buñ ko defee suñu doon waaye nag. am na ñoo xam ne buñ leen malee. am na ñoo xam ne buñ la malee. buñ nit malee demal bu la say bët. demal bu la say bët. takk say xef. takk say xef. tey góor. tey góor. tey walax dugg ci mbedd mi. tey walax dugg ci mbedd mi. dootoo ko defati de. dootoo ko defati de. kenn mënu laa aar. kenn mënu laa aar. kenn mënu laa sàmm. nañ bàyyi. nañ bàyyi. buñ dugal ci noonu dara. buñ génne ci noonu dara. mënuñoo def ci noonu tus. mënuñoo dindi ci ñun tus. waaye nag. waaye lépp loo xam ne nag. lépp loo xam ne nag. dana nu nu faagaagal. ñu ngi fi. loolu leer na nañ. loolu leer na ko xool topp ko. ku ko xool gis ko. bu ko. bëgguñu ñun te sëñ Tuubaa ku ko bañ mu bañ la nga bëgg kooka wóoru ko wóoru de gëm yaakaar tubaab bëgg ko wóolu ko defe ne sa njëriñ la mu ko ci àddina bari na ñoo xam ne ñu ngi nekk fii ci réew mi tubaab yi ñu ngi ci France di ko financé leen di leen bayloo mbaa leneen ci biir mbay mi OCM dañ koy dugal ci biir. nga xam ne ku koy lekk. long terme. long terme. am at mbaa ñaari ñetti at. door laa rey. loolu soxla nañ ko lool. waaye ko fi yàlla bàyyi. kenn mënu laa yóbbu. ku yàlla yóbbu. kenn mënu laa dellu. kenn mënu laa dellu. yàlla moomu nag. nu gëm ko. ngir ngir sëñ Tuubaa. ñu xam ko. ngir sëñ Tuubaa. te am na jàpp ngir sëñ Tuubaa nañ ci way te wéy ci te lu lool buñ ko déglu ko dégg buñ ko dégg ay jullit lanu ay jullit lanu ak julli jàng alxuraan baax ak def lu baax wax lu baax ak bokk pas-pas fas defar bokk bi defar dëkkandoo defar taalibe gi defar lépp yàlla dimbale nu bu baax a baax baaxal sunu lépp te tey wattu engrais yu bari sama tool dundal. ma def mbay tuuti rek. ma def mbay tuuti rek. damay def nag aswaay bi joxe fa joxe fa ay produits. damay def rek aswaay joxe fa ay ay joxe fa ay ay waaye wax naa ba kii lu yàgg yàgg. waaye wax naa ba kii lu yàgg yàgg. ku mën a indi. produit bi ku ko mën a ak ku mën a jóge. bu leen ko jege. bu leen ko laal. bu leen ko laal. ci tool yi. ndax kat. ñi bëgg nu gont maa nu baa ñu xëy. jëm àllaaxira. jëm àllaaxira. te yàlla defu ko. te baa ñu xëy ñoom.